ziyaara asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw boo xamante ni édition Sarsara 2022 def nañ ko ba noppi Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te wér yabal fi Serigne Mamoun Mbacké moom Cheikh Mamadou Fadal mu fekk si rakkam ju tedd ji Serigne Sidi Mbacké Serigne Mamoun bi mu jógee ci jataay bi xolam sedd na lool waaye xelam it dellu na ci jàmbaar ji nga xam ne moom la ñuy fàttaliku fii te fàttaliku bi moom mu daj ay coono yu metti waaye mu xamal ne suñu borom daf ko war na fay fii waaye mu digg nu ci ay bakar feggu muy inna lazina ila sar saara xat xasadu siyaarati faaraxu daa ni aw saara sëriñ Mamoune tàllal nañ ko sunu micro lii la ñu dénk. waaw kon jërëjëf sëñ euh, maam Thierno xanaa bala maa sori sax bala maa sori dama bëgg sëriñ Sidi di bëgg kàddu gu sëriñ liggéey bi moo ñu fi nekkal nekk fi Cheikh Ahmadou Mountakha nekk fi yoonu murid yëpp bu tàmbalee bu noppi lu mu gàtt gàtt rek bu dee bu noppee rek mu sàddi ñaari kàddu rek mu daal di ñaan ndax moo ñu fi nekkal te bu waxee wax nañ bu waxee wax na kon nag mu dimbali ñu rek waaw lu mu nëbb nëbb rek gannaaw moo ubbi woon liggéey bi taxawu ko dem Sarsara taxawu exposition bi def lépp ba ba yëf yi ak si ci ji kon moom la ñuy jébbal kàddu gi rek mu tënk ñetti baat rek noppee man ma ñaan rek ñu daal yooyu ko waaw ndax mooñ fi nekk mooy suñu loxo mooy suñu bët waaye nag samay kàddu daa nekk ci biir kàddoom rek ndax yoon wi moom genn kàddu la am te mooy sama kilifa bu fi teewee sama kàddoom ci biir kàddoom di sant rek ci teewaay bi mu teew di ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax taw feex la ci ñun ci sëriñ bi eh, yebal gi mu ko yebal Euh, ndax ku mu yebal rek moom moom day daal di doon tawféex ju mag rawatina moom mii nga xam ne nag dafa dafa dafa doon cosaan ci liggéey bi waaw kon nag sa kaddu rek jërëjëf Mbacke waaw moom daal euh, mu yàgg fi loolu te wér ak njabootu Sëriñ gépp ak jullit yëpp ko Sénégal gépp ak Mauritanie ñu am jàmm am xéewal te déggoo gi ak jàpp gi yàgg tey sant yàlla ci lii rek di sant Sëriñ Sidi ak mbokki taalibe yëpp ki turu Cheikh Mouhamadou Mountakha te xam ne ndamul lislaam la encore ndamul Sëriñ Tuubaa la waaw ndax ba fi nekk métti woon na lool moo moog ay benn benn fi nekkoon mu taxawu leen teete leen jàngal leen mu métti lool kon bu ñu demee ba am fi li ndam loolu sant yàlla ci waar waaw taxaw fi taxawaay bu rafet mook taalibe yëpp kon nañ koy sant yu te ñaan mu yàgg fi loolu te wér te ñun taalibe yëpp ñu yàgg ci gannaawam ñu ko taxaw jamono sëriñ Saaliwu bi ñu ko toppatoo mu jafe woon ci ndimbalul sëriñ Tuubaa tax lépp jàppandi ba ñu fa 1000 mètres sur 1000 mille ña joxe woon dañoo wax bis bu ñu ko tabaxee ba mu fees ñu yokkatal ñu te ba léegi mu feesagul kon nañ koy def sëriñ Tuubaa Touba kon nag bu ko defee rek ñu sant leen sant yéen itam waa presse bi di sant mbokk yi presse bi koy jàllale ci àdduna sépp ndax itam seen seen taxawaay taxawaay bu rëy la ci réew liggéey bi di sant kilifa réew mi Cheikh Mamadou Ghazouani di sant rakkam mbokkam Cheikh Al Macky Sall ak njaw kilifa yi Sénégal yëpp ak kilifa Mauritanie yëpp ndax damay wax ne ñaari dëkk yi ñaari réew la waaye benn peuple la donc ñaari réew la di Sénégal ak Mauritanie waaye benn peuple la waaw te it waaw kon kon jëf ñu ñu fekk ko at yu bari lool ci barke borom Touba te yàlla faj aajo yëpp yàlla yàlla jëlee fi mbas mi daf fi xéewal daf fi déggoo daf fi jàmm ju yaatu lool ci barke borom Touba barke bi Cheikh Ahmadou Mountakha jërë ngeen jëf. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. amiin Prabhu.